salaamaaleykum wa rahmatulah barakatu sunu sang bu sell bu tedd bu baax ba sëriñ Saariw lépp lu nu wax te feeñu ca wax ja bu noppa ba ñu yeboo ne wax ja euh, dëgguwut ba ñu yeboo it ne wax ja neexunu nun day wax dëgg am nañu rëccu sax bu wóor ndax lépp loo xam ne doon nañu ko sant di nu ko defloo lañ ca jot a def lu ca doonoon lenn bu njëgoon tey ji daanu ca farlu ba mu nekk ay fukki fukk mba ay téeméeri téeméeri mba ay junni junni mos awale nag ci loolu siraatul mustaqim mos noo xemmem la loolu siraatul mustaqim mos a dund ak noonu ci loolu siraatul mustaqim ba tax na fii ñu toll ci àdduna ci ni turam xewee ci réew mi ak ndaje yi ak waxtaan yi man day bu ma koy dégg dama ne waaw xanaa waxuñu sëñ Saliou ma ma xamoon ndax moom day waxam amul mboo sóor amul laxwu te ci lu dëgg rekk la ne woon lu wóor rek la ne woon daanoon wax ne yéen ñii ku dul mi ma boole ak yéen yéen ma ko gënal ndax seeni waajur dañ leen a jur muñ leen jox ma leen man mii nag fa ma sama wajur awale woon awale fa sama ñi ma ko bokkal foofee la leen bëgg awale na ngeen fonk loon njàngum alxuraan ak njàngum xam-xam ak njàngum xasida te nangoo dem ci tool yeeg a liggéey fu ngeen daje ak koo xam ma ngi leen di naatal ak di leen wax ni léggéeyal sëriñ bi yëpp doole la muy wax kenn waxloo ko ko te du waxi sëriñ bi te wóorul nag ndax toppi waxi eh, sëriñ bi moo gën a wóor topp waxi nit fee ca got jee nga xam ne moom laa gën a yàgg nekk nañ fa bis mu woonu boobu maa fa ne ak euh, alaaj si ci waa kër sëñ Malick Bassine ak xaari mbay ci waa Longoor la ak sëñ euh, Moustapha Boussa doomi sëñ Moutali Boussa la boobu nag wax dëgg alhamdulilahi rabbil alamin loo doonu jàmbaaram boo dëkkee ak jàmbaar jarooy ko boo Moussa moom ab Boussa Boussa la waaye moo nu jiite woon ca taalu bëgg moonu daa xiirtal ci lu bari ñu dem ba ñëpp tëdd nu dem root ndaa yi ñu war a root bu ñu xëyee fekk mu fees bu taxanee jotee ñu wéy ca tool ya taxane te nangu ko yanu andi léeg-léeg guddi ñu ŋàbb sunuy radu radu daara ji du woon suñ pas-pasu bopp waaye boobu moom moo moonu doon toqi ca loola ñu di ko ca topp di ko ca topp di ko ca topp bu mujj ñu man ko sëriñ saa yu nag loolu ñu wax man sa kanam man sa ginnaaw mënoo séq ak moom lu mu xamut rawatina ku muy tërbiya at baatat la fa daan ñëw ba mu ñëwee bay dem woonu daal yéen de dafa mel ni ak taalibe bi dafa doon seen yitte te ak taalibe bi de comme doon yitteem ku ne waris ko caa dimbale ak taalibe bi nag li ci gën mooy fexe ba doon murit saadiq murit saadiq nag mooy lan mooy ku am lu kenn amut la ko tax am lu kenn amut dafa def lu kenn di fut murit saadiq day fekk ñay jàng ca njàng ma tamu man leen ca fekk ñay liggéey ca liggéey ba mu man leen ca daa di li ma leen koy misaale ca bu njëkk daa nga gis ko dem ba samp kër ñu yot ko soxna mu dëddu sona sax ni balaa del sa dee wattu alxuraan kooku bu fekkoon ne njàngum alxuraan doo ngay doon taxaw doon murid saadix mu doon ko daa ni nu fi jiitu woone bu ñu dàqute julli dàqunu leen ko kon bu loola dong doon taxaw doon murid saadix ñu doon ko waaye murid saadix mooy ki boole yépp day fekk kay jàng alxuraan mën a jàng moom ca man ko fekk ñay jàngi xës da mu ànd ca ak ñoom fekk ñenee ca toole mu ne ànd ca am daal nag yett ngi nag yoo xamante gaaw na lool ci jëriñ ab murit muy buub ak rooti ak taxani ñu daal di xam ne kon nun li nu Moustapha doon sanu ci ànd ak moom te Moustapha boobu mënuñu koo ñàkk a topp ndax man ka li ma yàgg-yàgg ak sëriñ bi menn moom rek la sëriñ bi ma sa wax ni topp leen ko taxani mii ngi ci yoonu murit sadiq xam naa yoonu murit sadiq diis na nag ndax ba ko sëriñ bi seeree seereeloo loola ba ñi mu génnee àdduna ànd ak àndutu ak sagoom sëñ bi wutal na ko soxna sax bañ koo matee ba di ko dugal ci néeg bi dafa dëpp ni moom du dugg ci néeg bu jigéen ne rahmatullahi sëñ saayu dem ci sëñ mu ni ko mbir ma doy na waar mu ko loolu mu doon ko mustaane du dugg ci néeg bu jigéen ne mu ni ko loolu da ngeen ko miinatut waaye daan na xew ca murit gu jëkk ga kon moom nee nañ sëñ bi dara dara lëntu ko ca yàlla na ko sun borom fayal taas nu ci barkeem te teg nu ci siraatul mustaqim te def nu nuy dëgg-dëgg taalibe yoo xam ne dañuy xeeñtu mbooram tamit bañ a fal sun bakkan bañ a fal adduna bañ fal saytaane ndax ku fal sa bakkan mbaa fa nga fal sa adduna mbaa nga fal saytaane tuddee ko sëriñ bi tooñ nga ko tuddee nga ko lu yoonam nekkut sëriñ moom lu sell lu jub lu dëggu loolaay la mu nekkoon ay karaamaam ak xarbaam ak i mayam nag foo ko takk romb na ko ndax loola jaaxal ci sa jëmm wala mu jaaxale ci mbir mu mën a doon sëriñ bi bu agsee loola da koy sekk nig di sànni ci àll ba waaye loolu lépp nag du ko tee nag làmbaayoo sariya ak xaqiiqa daari xabanje moo cene dafa am bis lu yéeme am ca damaa toog bay julli gee sëriñ bi woo ma ne ma ndax kër gi gan ñi ñëpp yewi ko nañ ma ne ko waaw ñëpp dem nañ da waaye saa su la waxee rek isiteel xamal ne am na lu xew mu ne ma demal wër wëral ba del si wax na nga fi gis kenn nam ma wër ne ko ah, gis naa fi jenn jigéen de ne ma demal laaj ko lu yitteem ma ñëw nuyoo soxna si ma ne ko ah yow fee ñëwoon mu ne ma man da siyaar si waaye dama mënta gisee ma ne ko ndax man nga maa wax sa yitte ma waxal la ko sëriñ bi mu ne ah moom ko gisoon de moo ma gënal ma ne ko man kay moo ma doon yebal di ma wërloo ñi fen rek bëgg ku ma gis nga wax ma sa yitte man daal li ma fi indi damaa tollub diggante te bale sa ëmb bu bale jàll docteur yi noonu nañu boo ëmbatee da nga faatu te naa cee ñàkk sama bakkan looloo taxoon dikk bëgg mu ñaanal maa si wax ko sëriñ bi booba luy niru courant amu fi lampe pétrole fi am sëñ bi ne demal woo ko mu ñëw ta fayal ma lampe bala ngaa dem boo agsee nag bu mu wax dara waaye nekkoon a taalal loxoom mu taalal loxoom sëñ bi ñaanal ko fekk ba may demee noonu na ma ñëw ñi fi tàggoo bay dem léegi nee leen nañu nekk ndax dama bëgg ñu yóbbaaleel ma ko euh, ba jam ñaaju mbaa bari ñi ba ma waxee ñooñu ne sëñ bi ngeen nekk daa am ku mu leen di boole ngir yóbbaaleel ko ko ñooñu def noonu càggante ga nag mooy jiw maa xam soxna sa mu numéro téléphone xamatuma ci dara waaye xam naa ne la mu bëggoon am na ko mucc na nga xool nag yëggu toll noonu ak liy daje ci mbooloo ni mu baree bari ci suba ngoon ba léegi nga yëg ci sa yaram ni am na fi ko war a gis koo war a xettali te du benn du ñaar du ñett du ñeent ba ci tawat jii di jël nit ñi nga xam ne ku mu dal ñu di cancer sax ku mu dal te yàlla dogal nga ñëw ci sëriñ bi te defoo ko ni buur bokkaaliwu yàlla wax ak moom bu la ñaanalee nga tàggoog moom danaa ci wax loolu nag du ma tudd jëmu ja dafa am koo xam ne dafa am soxna a moom ñaari at ñetti at ñeenteeri juróom ndax tële ba léegi moom soxna sa dem mu amat beneen jéem-jéem mu dem bañ ca ma ne ko ah, benn buntu nga dese te buntu bi boo muusut du sotti boo ñëwee ci sëriñ bi te kooku borom alxuraan la nga nanga koo jàngaleel te boo toogee ak moom ni ko nanga ma ma jaaxal te bañ caa soxla tontu boobaa nga xam ne mooy mbër jëmm jooju def noonu ñëw di jàngale toogal sëñ bi leeral ko jafe-jafe bi mu am sëñ bi tontuwu ko waaye fi mu toll bari nag njaboot lu bari na soxna lool te loolu tuuti la ci li nga xam ne sëriñ bi doon na ko doxal koo xam nag da ngaa jël nag baax yooyu bëgg ko dundee mooy tax nga sànku mbaa nga sànk keneen waaye nag li nga xam ne moom la yemali wutoon ak dara mooy tegee ci ak jub te nangoo liggéey dib taalube te fonk mbirum sëriñ bi am na sax benn bi fi may ne jànnatu lu tuuta xewoon booba waaye dafa maa wax ne na nga dem ci rajo ba wax ko ñëpp dégg ko allah xayra fii kasirin min najwihum ila man amara bi sadaqatin aw mahrufin aw islahin bayna nas kàddu gu waaye di yëkkati na nekk wax ju baax mbaa ngay digle saraxe mbaa ngay wax luy defare waaye kàddu goo xam ne gu yàq la na ko ku ne wattoo génne ci gémmiñam loolu la aay ji firi te booba lañ doon dund lu tuuti la waaye ba mu ko fegatee jeex na te yàgg na ci lu mel noonu nag ndax gootit ba xabaanit ba ma fay dem nett lañ ma lu mel noonu ci lu xewoon ñu di ko wax ci réew mi ba mu ñëwee daa wooññe jege ci magi taalibe yi ne mbir sàngam ak mbir sàngam ku ci doon wax noppi ci danaa fi tolli beneen jumla ci am njariñam ndax damaa ne ca daara xabaan ñuy bindu lemp ma wàññi lemp ba ba mu néewu lool ma ñëw di ko laaj mu ne waaw lemp bi moom lu ko tax a tuute noonu ma ko maa ko wàññi mu ne nga wàññi ko ma ne ko damaa gis ñu bari bàyyi koo fay ñiy fay ku si ne dañoo wàññi lañ doon fay mu ne yow de dama lay yorloo kër te waxtaanu dana war a waxtaan man mbirum lempo duma ko woyafal ndax suñ dëkk bii kat am na lu fi ma sa xew ba ñuy bindu lempo man ak sa sëñ Ibrahima seen bu kenn ku ne bindoon la ci sa kër kon nag bu ñu demee ba loolee lépp jeex ñu dem ba kenn ku ne leen sa kër loo bind bind am loo fa bàyyi. yokk ko laa xalaat waaye xalaatuma ko wàññi demal dellool ma lemp ba fa mu nekkoon ba ci xel koom gee bi fi sëriñ bii ne buñ ne fayu lemp jot na la mu fay génne di ko joxee da nga naan lu mu ci jublu kookee moo doon nit ku xam yàlla ku xam adduna ku amal njariñ réew mi ku dimbale buur ku dimbale baadoola ku noppal ñëpp te dox diggante ku nekkub coono te neccul su xam yàlla na ko suñu boroom fayal te xiir nu ci roy mbooram ak xeñtu ko ak jéem a dund ci ay tegtalam ak ñu